Ousmane Sonko ak ñi mu àndal la ñuy tuumaal ne dañoo bëgg a planifier ab guerre civile. musiba naar kumba yàlla nañu ci yàlla musal mu nekk nag ay kàddu yoo xam ni ñoom ñi ngi ko daal di yëkkati jëmale ko ci Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ñëpp ndax jàpp nañ ne ñoom lool kese lañ bëgg fii ci Sénégal ba tax daal di woote manifestation 14 ak 15 mars ñi ngi xam ne nag que ni lii Ousmane Sonko bëgg def ci réew mi duñ ko seetaan benn yoon ñoom ñi ngi xam ne ne Ousmane Sonko daa war a wuyu ji le 16 mars ci procès bi dox ci digganteem ak ma mbay Niang waaye lii nga xam actuellement bu dee luy am la mën naa jur ay jafe-jafe ci réew mi mën naa jur ay tension ñoom dem nañ sax bay cité waa MFDC mooy rebelle ya nekk ca Casamance nga xam ne dañoo signé ab accord ak état du Sénégal yi dinañ teg lépp loo xam ni ay gànnaay la nga daal di indiwaat jàmm ak salaam foofee ca zone ba ñu ne xanaa du sax waroon nañoo mën a xool ci ñoom bañ fee indi nag benn jafe-jafe boo xam ni dañuy dugal réew mi ci guuta gu kenn dul xam fan la ñu koy waxee. ñoom nag waa APR secrétariat exécutif national ba ñi ngi xam leen ni Ousmane Sonko ak i ñoñam lenn mooy seen yitte mooy rendre le pays ingouvernable maanaam fexe ba réew mi kenn dootu ko mën a téye kenn dootu ko mën a gérer kenn du ko mën contrôler ndax ay xeex ci bépp gox-goxaat yoo xam ni daf fay daal di am lenn kese mooy seen ab yitte comme ni ñu ko waxee mooy jaxase réew mi. mu nekk nag mbir mu doy waar boo xam ne ñoom loolu lañ jàpp ne Ousmane Sonko ak i ñooñam moom lañ bëgg Ousmane Sonko keroog bi muy def ab discours am. mu wax lu leer naññ mu ne wowuma kenn ci guerre civile wowuma kenn ci coup d'état wowuma kenn ci jéem a indil kenn ku mu mënti doon jafe-jafe ci réew mi lenn daal laa xam ni maa ngi koy yëgal président ki sàll mooy que ni dinañ manifester par A ou par B amul autorisation ou pas mu leen koo mën a xañ loole mooy kàddu yi nga xam ni moom Ousmane Sonko daal dina koy yëkkati jamale ko ci le président Macky Sall pour le 14 et le 15 mars bi ñu dëgmal ñoom la ñu jàpp bëgg jaxase réew mi moom wax ñi mu àndal waa Yewwi Askan Wi waaye duñ ko setaan te nag ñoom ñi ngi xam la ne ñi ngi woo képp koo xam ne danga nekk fii ci réewum Sénégal nga daal di am conscience ci mbir mi waa communauté internationale bi itam ñu leen daal di avertir mu nekk nag mbir moo xam ne kenn xamul fu muy mujjee waaye lenn lañ ci mën a wax mooy que ne ki yor état moo yor sécurité wu réew mi dëgg la nag léeg-léeg dafa war di wane app dooleem ngir ñu daal di koy ragal maanaam l'état doit être craint ñëpp nañ ne Sénégal loolu amatu fi ne lu mën a taal réew mi la te ay du yam ci boppu borom kenn xamul fu muy mujjee la ñuy insinuer ñoom ne Ousmane Sonko la bëgg muy wàllum guerre civile ñaanuñu ko yàlla bu dee am na ci Sénégal gile bu boobaa ki ci njëkk am ay jafe-jafe mooy le président de la République du Sénégal ànd ci nag ak ñi mu bokkal liggéey bi ñëpp Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur ak ñoom ñëpp ñu ànd ci ginnaaw président Macky Sall ngir di ko jàppale ci ab liggéeyam a ak Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko ci boppam lii yëpp mën naa am ay conséquences yu naqari yu mën a jural sénégalais yi ba tax na nous appelons à la paix jàmm la ñu wootee jàmm la ñuy woote ci kaw président de la république Macky Sall jàmm la ñuy woote ci kaw opposition bi Ousmane Sonko en tête ànd ci ak waa Yewwi Askan Wi ñoom ñëpp ci biir waaye nag dégg nañ discours bi nga xam ne opposition bi tenir na ko mooy discours dox leen ci jàmm manifester ci jàmm bu kenn tooñ kenn te itam am na sax ñoo xam partage ci réseaux sociaux yi ne képp kuy dem ci yooyu le rassemblement le 14 ak manifestation yu war a am ci 46 départements yi na nga sol lu weex ngir wane ni jàmm ak salaam moo la tax a jóg yore drapeau Sénégal ngir xamal képp ku lay setaan que ne jàmm dong moo la yitteel lii moo di mbir mi te lii la ñuy xaar à ce que képp kuy sénégalais daal di koy comprendre soxlawuñu fitna di daal di am te léeg-léeg nag bu fekkente ne manifestation am nañu autoriser ko dinañ dem ba ñëw te du am benn jafe-jafe waaye buñ ko jéemee ñàkk bañ a autoriser rek am ci ab résistance bu am leneen lay jur gis nañ la xewoon ca Mbàkke c'était vraiment regrettable réew mi nag mi ngi ci kawo actuellement qu'on le dise ou non li gën nag mooy ñu jéem a xool naka la ñuy trouver ay solution ngir mën a génn ci jafe bii ñu daal di nekk Ousmane Sonko day wuy ji le 16 mars bi ñu dëgmal nañu ko bàyyi moom ak waa Yewwi Askan Wi ñu amal seen rassemblement ndax am nañ ci droit constitution moo leen ko dal di may nañu taxaw jàkkaarloo ak àdduna bi yëpp xamal ko ma Macky Sall ni mu yoree suñu am réew di Sénégal képp rek koo xam ni réew mi intéressé na la nga daal di ciy dem wane sab naqar ak itam jàppale bi ngay jàppale ñi nekk au devant de la scène di xeexal Sénégal benn naa ngi noonu ñaareel bi mooy ñi bëgg a manifester ci 46 département yëpp nañ leen bàyyi ñu manifester dox jóge ba yegg ci beneen poñ wane seen naqar ci réew mi waaye buñ créé benn trouble buñ indi benn problème loolu am ci jàmm ak salaam ñu filmer ko àdduna bi yëpp daal di koy gis xam ni waa Sénégal ñi ngi manifester ngir jàmm ak salaam ñu delloo si ko seen réew ndax amuñu ko ndax dafa am ay opposants politiques yoo xam ni dañ leen di teg ay coono numéro un bi moo di Ousmane Sonko actuellement ñu jéem a xool naka la ñuy def nag ba bàyyi ko ci jàmm ak salaam président Macky Sall itam mbirum troisième mandat mu bañ ko fay def scandale yi ñuy dégg bés yàlla yàlla sàkk ñu naqarlu ko lii mooy mbir mi 14 ngoogu ak 15 mars ñu xëy ci suba jàmm le 16 mars 2023 Ousmane Sonko dem ci jàmm ak salaam àndandoo nag ak Sénégal gi yëpp bu ko neexee ndax procès public la dem ca biir salle d'audience ba jàkkaarloo ak Mame Mbaye Niang génnee preuve yi nga xam ni day dugal Mame Mbaye ci mbirum Prodac bi nga xam ne mu Ousmane Sonko moo ko jiñ ne daf ciy détourné lu toll ci vingt neuf milliards de francs CFA nekk ab scandale bu doy waar boo xam ni Ibrahim sekk sax mu forum civil la dina ci bind ab livre wane sax ordre de service bi nga xam ni moom Mame Mbaye moo ko daldi woon signé lii mooy mbir mi méttiwul nañ ko teg ci yoon rek lépp daal di am ci jàmm ak salaam bu dee Mame Mbaye Niang dafa am loo xam ne da koy indi luy infirmer Ousmane Sonko lim ko daal di wax boobaa jàmm nañ ñooy mu setal deram dem yoonam bu dee loolu amul moom Mame Mbaye la mu waxoon ne moom mooy constitué wu en prisonnier dem ba ci procureur ne ko tëj ma mu daal di koy def ñu ne ko ràpp ci kaso bi coow li jeex Ousmane Sonko itam juge nga xam ni ñoo koy jugé nañ teg lépp ci yoon tëddee njaaxaanaay nekk ndey di seex yemale ay droit Sonko ay droit wu Mame Mbaye Niang bañ koo pëtam pëtamee bañ koo parax paraxee bañ jël lépp bëgg koo def ci saa si rek teg ko ay daan avancé loolu du am loolu du mën a ne. dañu respecté lépp ku ci nekk ñu delloo la sab cër ba mu mat sëkk bu ko defee Sénégal gii dina daal di nekk ci jàmm lii de moom la ñu gis comme solution par rapport ak li war a xew ci réew mi. lii xew lenn képp la bu dee coow am na daa fekk kenn ne damay def kii ne du fi amee ñu jàmmaarloo dëkk bi tàkk tasaaroo te benn goutte de plus bi nga xam ne léeg mooy déverser loo bi bés bu amee rek kenn du xam fu muy mujjee te bu boobaa muy président ma Macky sàll muy ku mënti doon ci Sénégal mën nga cee jëlee lu la dul neex te nag président Macky Sall moo ci ëpp ay risques ah, mooy le gardien de la constitution mooy le chef de l'État mooy le président de la République du Sénégal kon moo war a dox ci jàmm am balaa kenn di ko daal di def faire en sorte que li ñëpp di xalaat bañ a am mu toog setaan gars ñu manifester contre moom comme ni nga xam ne moom président Macky Sall noonu la ko defee woon ak maître Abdoulaye Wade ba mu cédé ko le pouvoir mu nekk le quatrième président de la République du Sénégal waaye nag dañuy jëm ci cinquième président ndax moom président Macky Sall mënul bokk ci élection yi di ñëw atum il ne sera pas candidat parce que c'est la a eu à consécutif au Sénégal kenn mënuta def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo fii ci réewum Sénégal moom président Macky Sall wax ko fu nekk ministre de la justice am Ismaïla Madior Fall garde des Sceaux taxaw ni il n'y a pas place à interprétation AGT News